man maay eh, njiitu daara ji nga xamee ni moom la ñu dippee daara sëriñ Youssou Diop daara la joo xamee ni nag daara ju xaw a yàgg la ndax daara ji 1854 fekk na ko mu sos suñu maamu papa moom moo ko sosoon daara ji léegi am na ay daara yu bare yu génn ci moom loo xamee ne xëy na jóge na fukki daara yoo xam ne yëpp ci daara ji lañ juddoo am na ci daara boo xamee ni léegi internat la boo xam ne daara ji moo ko jur nga xamee ni internat franco arabe la xale yi dañ fay toog di jàng di mokkal alquran waaye di jàng français euh, année scolaire bi passé daanaka ñi doon def cm e ak CM2 yëpp bi ñu defee CFE 100 pour cent la ñu am te daara jooyu ci daara ji la jóge daara ji dafa am ñoo xamee ni dañuy jàng di wàcc am ñoo xamee ni dañuy dëkk ci daara ji euh, Euh, noonu daal la daara ji di doxe dégg nga ñoo ngi fi jàng nag alquran mais moo leen fànnu xam-xam yu nuy jàng ci wàllu diine walla ci wàllu làkkum arab daara ji ñoo ngi koy jàngale loolu daal ci ci gàttal moom mooy mbirum daara ji waaw salaamaaleykum wa rahmatullah man Serigne Babacar Ndiaye man maay euh, njiitu daara ji nga xamee ni moom la ñu dippee daara Serigne Youssou Diop daara la joo xamee ni nag daara ju xaw a yàgg la ndax daara ji 1854 fekk na ko mu sos suñu maamu papa moom moo ko sosoon daara ji léegi am na ay daara yu bari yu génn ci moom loo xamee ne xëy na jóge na fukki daara yoo xam ne yëpp ci daara ji lañ juddoo am na ci daara boo xamee ni léegi internat la boo xam ne daara ji moo ko jur nga xamee ni internat franco arabe la xale yi dañ fay toog di jàng di mokkal alquran waaye di jàng français euh, année scolaire bi passé daanaka ñi doon def cm ak CM2 yëpp bi ñu defee CFE 100 pour cent la am te daara jooyu ci daara ji la jóge daara ji dafa am ñoo xam dañuy jàng di wàcc am ñoo xam ne dañuy dëkk ci daara ji euh, noonu daal la daara ji di doxe dégg nga ñoo ngi fi jàng nag alquran mais mbooleem fànnu xam-xam yu nuy jàng ci wàllu diine wala ci wàllu làkkum arab daara ji ñoo ngi koy jàngale loolu daal ci ci gàttal moom mooy mbirum daara ji édition waaw bi mooy quatrième édition ci daara yi waaw bi mooy quatrième édition waaw euh, daara moom dafa doon loo xamee ni nit ñi ñoo ko moom parce que daara rek nga ni duñu